nouvelle maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci ne ci turam ak santam di diital ci nuyoo bi monsieur le préfet ak maire yi nga xam ne ñoo fi waroon a teew ñu yëgaloon leen lii du nuyu vice président yi nga xam ne fal nañ leen maa ngi nuyu secrétaire élu yi ak conseil ak ñi nga xam ne dañ leen fee invité ñu nekk fi donc tey jii li ñu fi dajalee ñun ñëpp xam nañ maa ngi gërëm suñ borom bi julli ci yonant bi salallaahu alayhi wa sallam di wax ne loolu li ko waral mooy victoire bi ñu am ci suñ coalition bi bennoo Bokk Yaakaar ba nga xam ne gane nañ conseil départemental bi amoon ci élection yi di le 23 janvier 2022 maa ngi wax suñ borom bi di ñaan suñ borom bi lii dañu fi tey yal nañ ne alhamdulilahi rabil alamin yéen ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di leen wax ne nag à partir d'aujourd'hui li nga xam ne dañu ko sas population Koungheul bi sas ñu ko day loo xam ne nii diis na dafa métti may ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi fi toog yore parti politique na ngeen xam ne parti politique yi teg nañ ko fële ci bunt bi ay conseiller lañ fal pour développement Koungheul yi ñu nekk donc maa ngi woon ñëpp soixante conseillers yi nga xam ne ñoom lañ fi fal ak ñi nga xam ne nekkuñ sax ci conseil yi pour ñu bokk jàppalante pour li nga xam ne moo ñu yëkkati mooy suñ développement Koungheul ñu daal di ko def ci kaw loolu nag li nga xam ne moom la ñuy gën a approfondir li ñuy liggéey mooy xam ngeen li ngeen xam ne Koungheul moo fi xew mbay lañ xam ak sàmm donc dinañ ci gën a dugal suñ loxo ak éducation pour xale yi nga xam ne jàngu ñu jàng ñuy jàng ñu dimbale leen seen jàng yeeg ak santé ak mbirum ndox ak yoon yi parce que xam ngeen ne yoon yi métti nañ lool donc conseil département bii nga xam ne moo taxaw bi juróomi at yële jeexee juróom-ñaari at yi juróom yi taxaw fas nañ yéene suñ liggéey yépp ci loolu lañ koy dugg fépp foo xam ne mën nañ faa dem uti ñaani abbi indi dinañ ko def ba ñu développer secteur yooyu dimbalewaale xale yi ñu daal di am liggéey looloo tax na comme ni ma ko waxee ci njëlbeen yi conseil yi fi nekk tey liggéey moo ñu tax a jóg faluñ conseil pour mu naan man conseiller rek la conseiller dañ ko far muy liggéey lii buñ ko paree dana am commission yoo xam ne dañ koy teg jox ko nit ñu liggéey commission yi nag buñ ko tegee bëgg naa ñaari weer yu nekk ku ci nekk commission ba nga am nga def rapport ñëw ñu woo conseil yëpp nga présenter li nga xam ne moom nga liggéey def li nga xam ne problème rencontrer yi la daal di taxaw ne lii mooy perspective d'avenir yi taxaw ne man fii laa toll lii laa réalisé pour département mais commission duñ ko jox kenn mu lem ko dugal ko ci trois wala mu def ko ci poosam code bi prévoir na ñeenti commission waaye dinañ ubbi yeneen commission ba nga xam ne dinañ liggéey ñëpp liggéey ak waa opposition bi liggéey ak képp koo xam ne kii bokkoon nga ci élection yi ñu ngi lay woo pour ñu ñëw bokk liggéey bi parce que Koungheul ñoo ko bokk képp koo xam ne bokkoon nga ci élection yi développement Koungheul moo la taxoon a jóg kon nag bu fekkee ne ñun jël nañ ko te keneen mënoon na koo jël yéen ñëpp maa ngi leen di woo ci loolu mais politique bi moom nañ ko teg fa di leen wax ne nag maa ngi gërëm ñëpp di jiital ci gërëm boobu ministre bu Assane Diop mi nga xam ne moo fi nekkoon parce que xam ngeen ne sumb póot dafa métti te moo ko sumboon ba teg ko ci raay bi ñun ñu war a ñëw yeggale li nga xam ne moom la fi bàyyi dinañ ko jël xool ko xoolaat ko liñ ci mën a yeggal ñu daal di ko jël lu luñ ci mën a yokk ñu yokk ko fàttewuma ñi nga xam ne ñoo fi jógee nga xam ne fekkewuñ lii xam naa bu ma limee damay juum waaye ku mel ni Birane Dem mënuma koo ñàkkal lim parce que lim def si Koungheul bu defe naa suma ma juumul moo fi doon premier maire premier député mu def ko fii doon fi maire def lu xarañ ci Koungheul ba tey ji mu xëy sàngoo suuf donc yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ki su ma na moom ñi ma àndaloon ñoo ma dugal ci politique te li fekkewuñ ko kon nañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana moom tamit di wax ne nag maa ngi gërëm ki nga xam ne mooy ndey mbili gi muy son excellence le président de la république Macky Sall nga xam ne du tey rek la ma defal lii ndax nommé na ma coordonnateur technique régional des constructions ma def fa sept ans ma jógee kooku mu nommé ma inspecteur général des bâtiments nga xam ne bâtiment bu ñu doon tabax ci Sénégal maay dem xool ndax baax nag baaxul def naa fa ñeenti at ma jóge jógee kooku mu nommé waat ma directeur général des constructions def naa ko juróom-ñetti at bâtiment yi nekk Kana yi nekk euh, Diamniadio presque yëpp maa ko def kon nag yaakaar naa ne Koungheul bu fekkoon ne loolu laa yore woon ci Sénégal Koungheul di benn département xëy na liggéey boobu bu ma yàlla dimbalee ma ànd ak sama sago dina am loo xam ne dinaa ko fi def ba bu may génn ëllëg ñu ne kii empreinte am ñu nii ndax booy dugg rek war ngaa xal naat na da ngaa war a génn daal yaakaar naa ne loolu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci élection yi nga xam ne ñoom noo tax ñu gañe élection yi muy mair yi nga xam ne ñoo fi nekk su ma leen limee damay juum ndax préfet dafa yàkkamti mais maire yi bu ñu gañee département yi maire yi ñoo tax ñu gañe ko seen loxo ngi ci ndax képp koo xam ne woteel nga mair woteel nga département bi ak ñun li nga xam ne moom lañu am noonu ñu boole ba moo tax résultat yi am ci kon nag yi maa ngi leen di rendre hommage maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen tàllal loxo ndax xam ngeen ne liggéeyu département lan la département mooy juróom-ñeent communes yi nga xam am nañ ko fi ñun lu ñu am dañuy dem yóbbu ko ci maire yi donc li ñuy commencé mooy maire bu si ne dinañ la woo ñu bokk toog waxtaan nga daal di lim say priorité nga ne man sama mairie lii laa fa bëgg laa la fa bëgg ñu daal di ko seet dem uti fu ñu ko amee ñoo sampal leen ko mais département bi buñ xalaat ne benn service rek bu taxaw nii département bi mooy juróom-ñeent communes yi nga xam na ñoo fi nekk donc luñ am dañ leen koy yóbbu ñu liggéey ko ñoom ci seen bilan sax lañ koy boole waale donc maa ngi woo ñëpp di leen wax ne man pare naa à partir de lundi liggéey bi dina commencé tey bu lu woon samedi sax liggéey bi dina commencé di leen wax ne nag jigéen ñi bu gën dem bàyyi leen yéen a waxoon parité parité bi su ma mu respecté nañ ko kon nag na ngeen bokk liggéey xam ne léegi ay kilifa ngeen ndax kuñ fal def la conseiller départemental ñu jëloon juróom-benn fukk ñu war koo fal ci ay junney junney nit ñu tànn leen di tànn di tànn ba mu des lu mut peut-être fukki nit wala lu des juróom fukki nit kon ngeen xam ne am na responsable boo xam ne mu ngi fii seen mbagg bu ñu leen wooyee réunion bu leen absenté na ngeen ñëw bu leen tardé parce que réunion réunion bu ñu leen waxee huit heures et demi la huit na leen fekk ngeen toog bu kenn génn te réunion bi jeexul ku xam ne dangay ngay absenté nga daal di ko justifier na lii moom moo tax may absenté parce que dañuy liggéey li ñu sas dafa métti ñëpp laay wax loolu liggéey moo ñu tax a jóg nañ leen liggéey il ne s'agit pas ñu wax ne rek man conseiller laa conseil laa jël conseil bi dugal ko ci biir liñ leen teg dafa métti lool lool lool lool te ku ci nekk responsabilité am te engagé bu fekkee ne def nañ liggéey bu baax ñun ñëpp dañ koy bokk bu les responsabilités sont partage bu ñuy sanctionné ñëpp dañuy booree sanction maa ngi woon nag conseil yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp juróom-benn conseil yi maa ngi leen di tàllal loxo teg leen affaire parti politique bi fële teg affaire tendance fële ngeen ñëw ñu bokk defar suñu liggéey suñu département. bu fekkee loolu moo leen taxoon a jóg ba ngeen def candidature na yeen da ngeen di doon président conseil départemental bi kon bu leen ma bàyyi bu ma ësalewu bu leen ma ësale ñëw ngeen bokk ak man ñu xàccandoo liggéey dóorandoo commission yi ñëpp ci dugg amul PDS amul AFP amul PASTEF ñëpp ñooy dugal ñu bokk liggéey bu fekkee ne résultat am na ñu séddoo bu ñu amul résultat ñu partagé les responsabilités maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam merci encore bureau de Koungheul messieurs les maires mesdames messieurs les vice-présidents mesdames messieurs les secrétaires élus Madame, Messieurs les conseillers départementaux, chers invités, en vos rangs et qualités, à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'installation des membres du conseil départemental de Kungel, je suis particulièrement heureuse et honorée de m'exprimer pour la première fois devant vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la victoire de la coalition Bernard Bok qui m'engage en tant que tête de liste majoritaire dans cette nouvelle noble mission de président du conseil départemental de Koungheul, que les bien voulu nous confier à travers les élections territoriales du 23 janvier 2022. Je prie pour qu'Allah nous accompagne et nous de bénédictions pour la réussite de notre mission. Aussi, cet instant nous amène à penser à nos compagnons politiques qui nous accompagnaient et qui ont grandement participé à cette consécration et qui sont disparus. J'ai aujourd'hui une pensée pieuse pour cela. Que le paradis soit leur demeure éternelle. Pour ne citer que M. Birandem, Feu Gonjou. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, devant vous, aux côtés du préfet, à qui je rends un vibrant hommage pour son professionnalisme et son accompagnement dans la conduite des opérations électorales. Je mesure toute la charge et l'exigence de la responsabilité qui est désormais la mienne de présider aux destinées du Conseil départemental de Koungheul. Je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance aux populations qui nous ont élus. Je peux témoigner mon engagement et le vôtre à traduire sans délai notre vision du développement socio-économique de notre collectivité. Je sais que Les défis qui nous interpellent sont énormes. Ces défis sont l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et l'accès aux autres services sociaux de base comme l'électricité, l'eau, l'emploi des jeunes, la promotion et l'autonomisation des femmes, etc. Une politique des infrastructures surtout routière, sera privilégiée pour redynamiser la vie des relations indispensables à la relance des activités socio-économiques dans le département de Koungheul. C'est pourquoi j'invite tous les conseillers départementaux ici présents à mesurer à hauteur, la hauteur et la densité de notre charge. Je compte m'appuyer sur votre engagement votre expérience, votre savoir-faire, votre détermination pour atteindre nos objectifs. En ce qui me concerne, je peux vous assurer que durant cette mandature, je m'inscrirai dans une démarche participative, inclusive, pour faire appel à toutes les compétences utiles à la réalisation des résultats attendus. Je mettrai à profit l'expérience acquise dans l'exercice de mes précédentes fonctions au service de notre conseil départemental. Toutefois, force est de reconnaître que la vie des institutions, comme celle des urnes, est soumise à l'épreuve des exigences du temps. Il est par conséquence nécessaire à des moments précis, comme celui-ci, de les adapter, comme le disait Georges Gordon. Je les institutions sont des horloges. De temps en temps, il faut savoir les arrêter, les nettoyer, les huiler et les mettre à leur juste. C'est pour cette pour simple dire que la nouvelle équipe, cette nouvelle équipe, je dirais, devra imprimer ses marques dans la marche de la collectivité en fonction des impératifs et défis qui interpelle les populations. Ainsi, la satisfaction de nos besoins sera le marqueur principal de nos actions et programmes. Dans cette dynamique, j'accorderai une attention particulière à toutes les propositions utiles, une importance particulière au travail en commun, à l'esprit de dialogue et de partenariat. Je peux vous affirmer ici ma volonté d'inscrire mon action n'orientage vers plus de proximité dans le sens de créer un environnement général favorable de travail, de recherche permanente de résultats. Chers collègues, chers conseillers, je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements au ministre Hassan Diop, président du conseil départemental. Je peux assurer qu'en cas de besoin, nous n'hésiterons pas à faire appel à son expérience pour avoir bâti les fondations de cette collectivité. J'associe mes remerciements à tous les maires ici présents, à qui je tends la main pour une franche collaboration et les conseillers départementaux. J'exprime toute ma reconnaissance et ma profonde solitude à son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal pour la confiance qu'il a bien voulu m'accorder une nouvelle fois après m'avoir porté à d'autres stations. À partir d'aujourd'hui, j'aborde cette fonction et cette responsabilité, consciente des évolutions permanentes qu'exige la gestion de l'administration d'une collectivité territoriale. Je reste déterminé de tout mettre en œuvre pour impulser le développement de notre cher développement, de notre cher Kunga. Je vous remercie de votre aimant.